ñu ngi leen ñi ngi fii nga xam ni mooy Grand Dakar nekk centre fi nga xam ne mooy centre culturel bi ñëw seet si fi jeex jàmm muy waaj bés bu mag muy kaj moo war a nekk war a opposé le 28 finalu clafé moo cee bëri nga xam ne mooy Baye Mandiaye numéro 2 avant tout dañuy nuyu si jeex jàmm na ko jeex jàmm nuyu nañ la waaw ñoo lay fay di la sant di nuyu gars yi fi toog yëpp di nuyu ñi sifur ñi sifur jeex jàmm yëpp maa leen bëgg di nuyu waa ahlu lamb yëpp di nuyu waa diaspora bi di nuyu képp kuy bëggee jeex jàmm rek jeex maa ngi lay nuyu jeex ñu lay nuyu bu baax di la ziar bu baax di gis euh, depuis un bout de temps ñu gis jeex jàmm bu nekk ci benn lance boo xam ne dafa mel lu xaw a wàccat la moo waral loolu. jeex ah jeex na pour man euh, dara waajul. maa ngi laam rek xarala nekk sama yoon. Mhm. mais ñi nga tàmbaloo nañ leen gis ñu yëg yow nga xaw a xaw a abeese xaw a xaar lu waral loolu. waaw dëgg la laamu noonu la. laamu yenn boo duggee ci yenn yenn euh, poul a sawee wala poul yi xaw a tàng yi gars yi duñu nangoo jël wala ñu am coow duñ la nangoo jël yow yaay yow yaay may chance ñi nga xam ne xëy na du mobiliser wala du genre mel noonu doo ko mën a bëre ak ñoom kon looloo war a say combat di xaw a yéex gars yi ñoo nangul tàllal loxo waaw na la demee gars yi ci a may booy ah, ah? mhm. parce que mbër yi gën a tëj ci làmb ni benn instant tamit la grand coup de petit ci grand yi waaw ku bëre neuf defet ku la jëlul ku ne noonu la demee rek. sa benn defet bi ki la ko daan moo la war a daan. waaw noonu la demee. sama morom la woon rek noonu la demee. daan ñeneen ak ñeneen. Mhm. waaw waaw nga war a bëri ki nga xam ne mooy Baye Mandiaye numéro 2 la moo la boole ak moom. Baye Mandiaye la non làmb moo ñu boole rek. comme que ñun dañoo nekk ci làmb te làmb moo suñu métier. di yoon ñuy toog di xaar xaar bu bëri di xaar euh, na mu dem esaat da rek nekk ci gisuma ci risque de. lu tax gisuma ci risque. gisoo ay dernier combat am xale yu bëri da leen freiné. waaw Baama Ndiaye. Hmm. nee naa la kooku du jàmbaar jàmbaar laa woote woon. Hmm. mais du jàmbaar. foo ko teg ne du jàmbaar. du jàmbaar. lu tax le 28 dina leer. waaw mais jeex xanaa jeex bu bees dañuy gis ñëw lëkk. le 28 daal dina leer. yaar naa am na deux face à face yëpp da koo daw mais le 28 mënu rëcc. Hmm. kon da nga da nga jàpp ni jeex jàmm daa da daa ragal adversaire bi yow. Baama Ndiaye est-ce que du bataille psychologique. non du bataille du bataille psychologique. Ah. ndax Baye Mandiaye mënul tudd sama tur parce que taafel la. lu tax jeex jàmm gi da koy déranger. mais jeex li nga wax nii la wala la la. jeex yaakaar naa bu ñu doon laam-laamee am na fit wala amul fit sax. Hmm. combat bi ma jàll war nañoo a war nañoo gën a mën a xam jeex. dëgg la noonu la demee kon. combat jàmbaar nga mujjee bëre. noonu la demee tële duma fu di wax ku bëre 25 minutes. Hmm. Euh, ak sa moroomu góor mhm. yaakaar naa fu kanam gën a baaxee nga dóor te daaw amu ja loolu gar mi moo koy def ndaanaan du ragal de kon Baye Mandiaye Baye Mandiaye na xaar loolu Baye Mandiaye hmm. man mën na faa am lu gën a métti loolu sax hmm? ci dix minutes dix minutes lan ñu may mais dix minutes yi première cinq minutes dina ci daj dina ci daj lu mburu mësul daj ci taal incha allah ñi ma nga jaxal lu Baye Mandiaye di man lépp laay def nee naa su ko réeré nay neex rek kon daal le 28 dañ dañ gis stade lamb ju musul am. le 28 saay saay bi moo ñëw stade. kon saay saay bi day yeewaat. saay saay bi moo yeewaat. mais saay saay bu tourné daje ki nga xam ne mooy gaynde gi nu muy demee. saay saay bi rawul dara. kooku aw yoonam nii la. talal ba caaga Ndiaye. mais fi ñu toll nii géej waaye lamb dafa nekkaat seen loxo est-ce que yaa ngi sóor loolu. ay Balla Gaye ñëppay ne ci doole man fi ma nekk namu ma dara. lu tax NGB gi. waaw Mbaor nekk sa ginnaaw. waaw man lu may lu may xalaat. xale Mbaor Mbaor bi. lan laay xalaat lan. fii mooy làmb de. fii ay ay booy ndaw fi nekk ay booy tàng jër. ay booy am ni liñ defagun ci ci ci temps bi yàggul sax te ñëpp dañ leen di dégg. mais gars yi amateurs yi dañu naan léegi làmb ji dafa mel dafa beddeeku dem ñoom loolu lañ jàmb rek. Hmm. mais fii am na lépp. fii lépp a ngi fi. fii lépp a ngi ah, la jeex da nga am lu la métti ci làmb ji. non dara ma fi. Ah? dara métti ma fi. non ni ngay waxee dafa mel wala dafa am loo bëgg a faj la nga bëgg a faj jeex. man naa bu may faj mi dinaa ko faj keneen ku dul Baba Ndiaye. du tax parce que naa Baba Ndiaye ndox mu seet la rek dañ koy naan rek doon jaaxaan noonu la demee. dafa gëlëm di ko. ko rek tëdd da ci am cër ni mu moom lay ñëw jël rek. Ah? champion rek le 28. dina am lu ko bett. nee na dafa bëgg a mbapat ak yow nee na nee na du la dóor parce que nee na yow da ngay gëmm loolu la wax moom moo ko wax Baama mu gëmm kon du ma ko dóor dama ko bëre. moo ko wax de. waaw bu jàppul ah, na da lay jàpp bëre yow. di dóor moom du ko def day jàpp ba pare doog a dóor affaire sedd yooyu noonu. Hmm? du ma la may loolu de boo bëggee jure di nga jure boo jure di jure jure far force mu lay neex jure tey jeex xam nga làmb ji li des bëreetul oh, ci tey mën nañu xam ci préparation yi ndax am ñu doon dégg naan jeex parewul wul bu baax quoi ndax jeex pare na wala parewul. en tout cas jeex pare na. Hmm. ak jeex parewul. Hmm. le 28. Hmm. man yabu ma samay mbokk yabu yabu ma ñi topp sama ginnaaw. te incha allah la ma fa am ko koy jëli ñaanu ma dara bu ma kenn may dara. noonu la demee séance nga préparé combat bi. combat lu mu li lu mu laaj rek def nañ ko. lu ñu yaakaar ñun dinañ ci am ndam rek. li des ci loxoy sun suñu borom lan koy teg ak wane sama fulla ak sama jam ak li li ma fi ma war a jëm noonu la demee. dama am dama la seet woon nga am loo waxoon dama mboor mboor yi lu ñu soxla mooy li nga xam ne mooy roi des arènes koy jëlee indi ko. loolu ba léegi wala. man ñi ma sas ñoo bëri. mboor gi dafa ma sas. dëgg la NGB sama ginaaw biscuiterie. waaw waaw asalem waa ko ñaay Fass. waa Grand Dakar waa Cambérène waa Parcelles. waa Guédiawaye gi mu dëkk. man at at naa may topp. mais xanaa kon yow <laughs> jeexu àdduna Sénégal dafa ndaw. jeexum àdduna la. Baye Fall yaa ngi lay xaar. jeex loo wax ci combat bi kan ngay woo parce que combat bi dafa xaw a métti te xam nga mbër mu ndaw day bëgg jàppale ci woo mu jàppale la ci bés bi. waaw ñi may gën a woo mooy ñi taxaw fii seen seen senes bi. waaw xale ndaw yi laay gën a ji làmb ji. Ah, parce que ñoom ñoo may topp. Mhm. ñoo may topp fu ne. Mhm. waaw di woo suñu maire tamit ku ci mel ne ñoom maire Mané xam nga ay ñoom xemes ñi may toogal añi parce que booy bu bu añul ba suur duñ buñ demee dama dama ñu toogal leen ay añ yu neex mhm. yu jaar ci yoon booy añ ñu dem làmb ji li des waa leen woo mhm. di woo waa alo Dakar yi mhm. waa Parwa yëpp ku ci mel ne suñu grand sikkim ku ci mel ne Ma Abdou ku ci mel ne Issa Mbaye ku ci mel ne Touba Seck ma yaa alo Dakar bi bàyyiwuma kenn ku ci mel ne Mbaye Babacar ku ci mel ne Laay Baye Fall su ma limee damay juum waa ku ci mel ne suñu yaay ulay moom day sonn suñu combat ku ci mel ne seer waa ñaari tali nag ko ñu fuur ba ko ñu saf saab ko ñu bagaar ko ñu mayta seen ko ñu bëy ah su ma limee damay juum mais waa NCB bi yëpp maa ngi leen di sas le 28 incha allah ñun ñoo ko fa am xam nga ku ci mel ne Pape Abdou Bey moom ñu ngi koy woo ji làmb ji ku ci mel ne euh, Alioune Sy ñoom tamit ñu ngi koy woo ji làmb ji ku ci mel ne suñu grand Bamba moom tamit day jàpp ci entraînement bu baax a baax suñu grand Pek xam nga suñu grand Seydou ku ci mel ne Baye Mbaye Faye suñu mag noiro ku ci mel ne Sidab Saloum Boy Dakar ku ci mel ne Cikir ñaanal yàlla suñu borom fëgaat boppam mu gën a wér ci barke di waa gox bi yëpp daal mbëri nekk secteur bi yëpp tamit maa ngi woo bi la waaw noonu ko naree def le 27 ak le 28 le 27 dañuy ñaanal Boy Dakar suñu borom may ko ndam ci kaw Valdo ndam lu sedd guy lu neex comme ni mu ñu ko rek moom moo ñu wan yoon wi fu mu jaay jaar tracé xam nga di ñaanal suñu boobu tamit ndam suñu borom àndal ànd ñun suturaal ñu kon daal kon daal bés ba daal yooyu la la nekk ca làmb yaa koy def arène nationale waaw incha allah Birane tamit suñu booy di ko ñaanal yàlla suñu borom euh, yàlla yërëm ko oy fa suuf ci kawam xam di ko ñaanal yàlla di ko gën a ñaanal yàlla suñu borom euh, ci kawam. Ah, parce que dafa bëri ay décès ngeen di waaj combat mu métti trop. Euh, ñi nga euh, na trop parce que ay jeunes ñoo fi ay jeunes ñoo fi bàyyi ko xam nga koñ rek yaakaar am na ko fa ngeen di dimanche tey jii suñu jël ko. xam na loolu loolu na moo waral open press ak yooyu yëpp ñu mujj ko bàyyi. xam nga timit mi fi bàyyi sonaam di ko ñaanal yàlla suñu borom may ko xolo muñ ndax nit ki lu mu loolu lay bëgg mais yàlla tamit lu mu bëgg saa yu bëggee ab jaamam day ñàkk dañ ñaan yàlla suñu borom euh, oyofa suuf seen kaw rek boole leen rek malaagal yërmaan ñoo ko déggandoo le 27 ak le 28 équipe bi moo aye Grand Dakar moo aye Boy Dakar mooy bëre le 27 buñ ci jógee nag jeex jàmm borom jàmm ji gis ngeen dégg ngeen li mu wax Baye Ma Ndiaye dégg nga waa ji li mu la wax ne la na nga xeex ak moom ba pare balaa ngaa bëre ak moom kon gars yi di lañ dox di dajee lënd ñu la neex ñu ànd stade ñu dimanche guddi incha allah ah. maa ko fa maa ko fa am loolu maa ko fa am. Ah? loolu maa ko fa am. Ah, gars yi na ko déggandoo Ma Ndiaye alwaxaala alwaxaalay naan mais lu mënu jaay gis nga mbaam mu doon day te dootul day te sama nijaay daa ta yàqi ne la bu dee dootul day. dimanche Baye Ma Ndiaye dee. Baye Ma Ndiaye dimanche du ko.